ak ñett téeméer liggéeykat ñoo laale ci projet te ni nguuru Sénégal fii na ko def ngir gëna defaraat stade Iba Mar ci période wàccaay Jeux olympiques yi ñu digmal mu nekk lu indi ay gàllankoor yu bari ah, amal nañu benn impact bu parce que ñun suñu xëyee chaque jour rek dañu war a liggéey. léegi fii buñ ko aménager pour ñu amaat liggéey ci place bu ñuy liggéey day métti parce fii nii yëpp clients yëpp fii la ñuy ñëw. aussi min nañu liggéey fii daal ku jug fii ngay ñëw léegi nag lii fii bu ñu ko dindee tey jii nag impact bu mag mag lay am si suñu suñu kii am ko si suñu famille parce que dafay am lu ñu war. liggéeykat yi fa fare nag tiit lool ndax jàpp nañ ni rek délai bi ñuy dégg doon na lu ndaw. mais wax na si dara kañ parce que dégg naa ñu naan octobre bii. am na ñu bëri ñoo xam ne dañu fi génn bii nii nii dégg naa ko si léegi mairie di wax ne octobre am na ñoo xam ne dañ génn. yeneen liggéeykat yi suñu amagul li leen leer ci bile mbir cordonnier yi ñoom seen xel dal na si. waaw d'après li ñu suñu autorités yi wax état war na wax ne moom ak cabinet bu seq ak moom liggéey ak Ageroute am na architecte bi ñu wan benn plan plan boobu war nañ ñu ne R plus la te yaakaar nañ ne. Euh, war nañ mën a gaar fu leer parce économie réew mi ñun dañ see bàyyi suñu waar kon war na mën a fexe ba ñun liggéey boobu ñu bañ ko perte ñi ñuy prévenir di di di jox ñu considération bu war léegi lu fi ñu war a dem nañ ñu bañ a bett jox ñu heure boo xamante ni tey mooy ñu ne coordonnées yi tant que maison di cure pare parewul duñ leen du duñ leen déplacer. rénovation stade Iba Mar nekk lu ñuy rafetlu bu.